yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa mawlaana muhammadin wa ala wa sahbihi bi ihsaani ilaa yawmi diin. mbokki jullit rawatina mbokki taalibe ak fu nu mën a nekk. noo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bi gën a tedd di jiital ci a moom nuyoo bi aseex Muhammadinil Muntaqa xafisahullahu wa rahaahu di ko ñaanal suñu borom sàmm ko loolu te aar ko te yi mu am ci liggéeyal Seexul Xadim mu àgg fu kawe njor te ànd ko ak moom kon niñ ko baaxoo defee rek tey jii ñoo ngi fii ci jumaay Tuubaa ànd ak waa daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñooy saytu jumaa ji ci li aju ci ndog yeeg yi ci aju ñun nag ñu ñëwoon fii ci daayiratu asaabul jannati bi setal jumaay Tuubaa bi nga xam ne sëriñ Bousso bi Bousso yàlla na ko yàlla dooli gërëm te yërëm ko moo ko taxawaloon ci nekku Cheikh Saliou Mbacké mu joxoon ko ndigal ñuy seetal jumaa ji muy alxames ju jot ak yeneen bis yu mel ne moom loolee nag tax ba daayiratu muqaddamatul xidma suñ àggee ci waxtu yi ñu bokk ci ñi nga xam ne ñi invité la ànd ak ñoom liggéey jumaa ji ngir ngir liggéey bi nga xam ne moom lañ bokk te ñoom it ñu di ko rafetal nu mu gën a ame nu mu gën a jaadoo ñu ànd ci ak ak ñoom ginnaaw loolu daayirat asaabu jannati ci njiital sëriñ Babacar Bousso ñoo ngi leen nuyu bu baax di sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne waa daayirat Muxaddamatul Xidma ñi ngi koy def di ko defaaleel murid yépp ndax niñ ko waxee woon sànq rek ci ngoon lii nga xam ne moom lañ taxawal ci jumaa ji te bañ ko taxawee rek léegi yàgg lool muy saabu waxtu woor weeru koor jotee ñu woo mboolem taalibe yëpp ak fu nu mën a nekk koo xam ne mën ngaa dogee ci jumaa ji ànd ak ñoom diglu waxtaan yi nga def ko muy la am solo ndax dañ ci dundalee ruux waaye di ci dundal yaram rawatina tey jii thème bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy thème boo xam ne mënta ñàkk ndax lu toll ne jaamu yàlla gu màgg-màgg gu mel ne weeru koor buñ demee ba war cee dugg war nañoo fàttaliwaat jullit ñëpp fi nga xam ne noonu la koor gi war a doxe li nga xam ne mooy defar koor gi ak li koy yàq kon waxtaan wu am am solo la comme ni ko Seexul Xadiim waxee benn jullit warta dugg ci genn jaamu yàlla te xamut nam koy defee man kaana jaahilan bi far fardihi walam yasal fa nafsuhu abada wa salam ak yeneen yu demee yu mel noonu yëpp kon ñi ngi sant daayira muqaddamatu xidma ci seen taxawaay bu rafet ci ci ci ndogu yi nga xam ne ñoo moom lañ porte di ko defal seexul xadim waaye di ci wuutu murit yëpp kon ñi ngi leen ñaanal yàlla bu baax suñu borom gën leen a kàttan te gën leen a taxaw di sant bu baax waa daayiratu asaabul jannat bi nga xam ne moom laa fi taxawee ci njiital sëriñ Babacar Bousso ak mboolem kilifa yi nekk ci ginnaaw nga xam ne seen yéene mooy waxtu wu nekk jumaay Tuubaa ji ba mu tàmbalee ba léegi ndax daayira biñ ko sosee ba léegi yàgg na lool waaye seen yitte mooy waxtu wu nekk buñ ñëwee ci jumaa ji faxe ba lépp loo xam ne luy taq la wala lu ñu demee fexe mu jug fi kon ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax képp koo xam ne rek sa yéene mooy liggéeyub sëriñ Tuubaa bi jën jëm kanam ñu ngi leen ñaanal bu baax di gën a am mbégte bu baax ci weer bi nga xam ne moom lañ dugg ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim waaye génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te sun borom subhaanahu wa taala lépp loo xam ne def nañ ko ci ak jaamu yàlla mu fulal nu ko te <coughs> tegal na ko fu kawe njort te làqal na ko foo xam ne yàqu dafa gis ci barke Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yaa xayra ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi